mbokk yi alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñi ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala ci dajewaat ci am néegam fas yéene jël benn bind bu aju ci wàll fiq ca mooy luy tax ñu dégg suñu diine suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam da daan wax ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin ko yàlla namm ci aw yiw day dana la xamal la nga xam ne mooy sa diine ñuy sukkandikoo ci téere bi ñu tuddee minhajul muslim ca mooy yoonu julit bu abu bakar aljazairi rahimahullah ñu ngi nekkoon ci téere bi jàngale wàllu julli yegsi woon ci buntub imaam ni mu war a wuute ci buntub imaam jëloon ci ay tomb ba war yëgsi tey ci fukkeelu tomb bi ak ñaar mooy istixlaaful imaamul ma'muum li uzrin ñi yor mool bu bees bi ñu ngi ci page cent quatre-vingt-dix-huit mool boo yorit nga xool ci baabul imaam imaama nga xool ñu ngi ci fukkeelu bind bi ak ñaar istixlaafu alimamu alma'muum li uzrin mbokk jiitu loolu yàlla dafa dogal ci jàkka ji mu am kenn ci magi jàkka ji ñu ngi ko doon wax abu samb xam naa ñi fii ñëw ci xamuñu turam moom daanaka ci jàkka ji li féete woon muy góor gu tuuti nii bari woon na it di poser ay question lool ci waxtaanu diini yi yàlla dafa dogal démb la faatu tey jii lañ ko jébbal boroomam ngeen ñaanal ko yal na ko yàlla jagleel njéggal ak yërmande te defal ñu ko defal ko bépp jullit su dee ne mbokk yi gis nañu kon day bunt bi day wax istixlaaful imaamul ma'muum li uzrin naka la imaam wara ute ku ko wuutu su dee day julli ba mujj ak ngant dal ko in zakara al imaamu asnaa salaatihi annahu muhdasun aw tara lahu al hadas su dee imaam day jiite ba mujj mu yëg ne man mii kat yoruma njàpp walla sax yoroon na njàpp waaye njàppam toj mu dab ko ak toj ci julli gi aw raufa walla muy julli ba mujj mu commencé di bori aw naabahu shay'un lam yastati al istimraara ma'ahu fi salaa walla lu ko mën a dab loo xam ne mënu koo ànd ak di continuer julli gi lahu an yastaxlifa mimman waraahu min alma'muumin dana ñeel imaam ci mu daldi wuutal kenn ci ñi nekk ci gannaawam ci ñi nga xam ne ñooy ñoo koy roy di ma'muum ya man yutimmu bihi salaatahum wa yansarif koo xam ne bu ñëwee moom dana mottali mbooloo ma seen julli su ko defee imaam moom daal di dem faqad istaxlafa omar radiyallahu anhu abdurrahman ibnu awf omar wuutal ne abdurrahman ibnu awf indama tuina wa huwa fi salaa keroog bañ ko jamee fekk mi ngi ci julleem wastaxfala wastaxlafa ali min min roafin asaaba ali it mas nay jiite ba mujj mu commencé bori mu daal di indi koo xam ni moo ko remplace waaw kon mbokk lii mooy li ñuy tudde wuutal imam bu ñëwee di jiite mbooloo mbooloo moomi même bu doon ñaari nit rek lay jiite ba baa mbooloo ma lu ñu toll mu dem ba yëg ni man kat ànduma ak njàpp wala mu dem ba mujj ngant dal ko bu mu mën a doon bu mu munta ànd ak julli gi day xool kenn ci ñi ci gannaawam ne ko yegdeeleel julli gi kooku fa imaam yem rek fa lay commencé moom daal di yegdeele la nga xam ne muy julli gi mi ngi noonu du jar ñu koy recommencer à zéro fa imaam yem rek foofu lay continuer daal di mottali julli gi mu joxe ci misaal keroog Omar ibn al-Khattab parce que say-say bi bon ba jami ab Lu'lu al-Majusi fekk mi ngi jiite jullit ñi ca fajar dafa daal di wax Abdurrahman ibn Awf mu ñëw jiite la nga xam ne ni moom mooy mbooloo ma radiyallahu anhum ajma'in loolu kon day wañu ni yàqu jullik imaam du yàq julli mbooloo mi nekk ci gannaawam imaam julli na mu njàppam toj na keneen lay wuutal rek mu yéggale mbooloo mi mbooloo mi ñoom seen seen seen julli baax na ñu ngi noonu bu dee fukkeelu bind ak ñett bi muy jàngale ci wàllu imaam mu ne yustahabu lil imam alla yutila fi lsolaa illa qiraata alrakaati al ula mu ni sopp nañ imam muy bañ a guddal lool ak julleem lu dul rakka bu jëkk ba ida kaana yarju an yudrikaha man taxallafa min aljamaa su dee ni imam tànk mi ngi yaakaar am na waa jàkka ji ñi yegseegul mën na guddal rakk boobe ngir ña ko fekkewul fekkee ko fa innahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yutiiluha yonent bi da daan guddal rakkam bu jëkk wa zalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu ida salla ahadukum binnaas kenn ci yéen buy jiite nit ñi fal yu xaffif na woyefal fa inna fihim daif am na ci ci biir mbooloo mi aji lompañ wa saqim am ci aji feebar wal kabir am ci ay mag fa in salla li nafsihi su dee ne nag boppam dong lay jullil fal yu tawil ma shaa nu guddal julli ga lu ko soob na am mbokk rasul sallallahu alayhi wa sallam daana wax ñi woyefal julli gi léeg-léeg xadis yu mel nii la ñenn ñi di sukkandikoo bu ñuy julli na ko parax-parax mu daal di jeex suñ demee ci yenn jàkka yi ñu jàpp ne imam yooyu dañuy indi fitna ndax dañuy guddal waaye nañu xam ne guddal ak gàttal dafa am ci lu ñu koy natt lan moo taxoon yonent bi wax lii mooy keroog ba mu onze demee di jiite seen waa gox ba mu nekkoon ca Madina su ñëwee ubbi suuratul baqara fitnaal leen ci loolu ca la yonent bi alayhi salaam waxoon wax ji waaye ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana digle mbir ba pare di juyoog mbiram déedéet sallallahu alayhi wa sallam te moom day bokk na lu ñu nettali ci julleem sallallahu alayhi wa sallam daanañu liqaam di waaja julli mu mel ne tisbaar benn waay bi dégg liqaam bi dem ca àll ba ca baqiya jamono jooje faj aajoom dem këram jàpp ñooy fekke premier rakka loolee kon mbokk ñu gis ni la yonent bi doon tudde ak woyefal ak li nit yi tey tudde ak woyefal loolee safaa noonu lool ala kulli xaal ku nekk di digg doomu jéggi dayoo ci guddal baaxul waaye nag woyefal ba doo matal ju liggéey it dañu xam ne baaxul amma su dee yow da ngay julli yow rek xamal ne yonent bi alayhi salaam daana wax ni julli gi gën te yàlla mooy julli gi gën a gudd mooy toolul xanu xanuut noo gën a yàggee ci julli ga loolu mooy julli ga gën ca yàlla soo jiite mbooloo nag su boobaa nga doon koo xam ne da ngay woyofal woyofal bu dëppook sunna mu ngi noonu su dee fukkee lu bunta ak ñeent mooy karahiyatu imaamatu man takrahuhul jamaa sib nañu lool sib goo xam ne sib nañ ko koo xam ne mbooloo ma ngay jiite bëgguñu la bëgguñu nga jiite leen yukrahu lirrajuli an yaumma unaasan hum lahu kaarihoon sib nañu lool nit muy jiite mbooloo su dee mbooloo ma ñoom dañ koo sib bëgguñu ko ida kaana karahiyatuhum lahu bi sababin diini su dee ne kay bañ gañ ko bañ mbir la boo xam ne daa aju ca diini li qawlihi alayhi salaatu wassalaam salaasatun laa turfa'u salaatuhum ñette ngi day seen julli du jëm kaw fawqa ru'usihim ca seen kaw bopp ya shibran lu tol na sax yaatuwaayu loxo rajulun amma qawman wa hum lahu kaarihun koo xam ne yaa ngay jiite am mbooloo ca mbooloo ma bëgguñu la wa mraatun baatat wa zawjuha alayha saaqit ak bépp jigéen boo xam ne ma nga fanaan ak merum jëkkëram jëkkër jàng ko meri mu fanaan ca loolee wa axawaan mutasarimaan ak ñaari mbokki julit yoo xam ni dañoo doon ñu dummoo yonte noonoonte almuhim lañu ci itteel mooy bu dee da ngaa nekk ci mbooloo nga am sikk boo xam ni nekk na sikk ci sa diine ba tax mbooloo ma bëgguñu nga jiite leen xam nga ni waliyas billah ni ngi may nettali benn quartier ci quartier Dakar koo xam ne nii yàlla da koo nattoo natt bu kii wàllu jigéen mi ngi noonu looli mu dem ba siiw ca jàkka ja ma ngi jàkka ja ñu ëpp ca ñoom ne dafiy jóge am ñeneen ñu ci opposé wu mu nekk fitna mbokk bu dee ne loolu daa daa natt bu dal nit waroo nekk di leen jiite boo xam ne boo taxawee ci kanamu nit ñi di jiite ñépp seen xol di ñagg-ñaggi nu siba la julli naa ci benn jàkka boo xamee ne nii soriwul fii loolu bi ma jullee ba pare benn xale yi dab ma ne ma imaam ndax gis nga góor googu doon julli ci gannaaw mën a mën a ko waaw mën a ma ci imaamu jàkka ji la bokk moo bu bu kii dee jiite du julli ndax kii nee na da koo gis muy pay mi mu ne mu ne moom it buy jiite kii du julli ci gannaawam ndax nee na xaw ma day yàq njàng meeg yu kenn xamul almuhim mbokk julit nit dana dañ bañ nit njëree waaso wi mbokk mi ngi noonu sant bi mbokk ak wala melokaanam bu doon cee naar ya nit ku ñuul ak yooyu bu dee loolu moom islam xamut loolu waaye bu dee ne défaut bi nga xamee ne nii moom la la nit ñi bañee mooy défaut la boo aju ci sa wàllu diini ci natt bu la yàlla nattoo ci bakkaar boo xam ne tax ni nit ñi bañ la ku mel noonu boo demee di jiiti nit ñi yàlla du yëkkati sa julli waliyaasu billah amma bu dee juróomeel bi fukkeel bi ak juróom mu ne man yalil imaam ñan ñooy ñiy sos ci imam wa inxiraafu l imam baada salaa ak it la nga xam ne mooy wëlbatiku gu imam di wëlbatiku gannaaw ba mu jullee ba pare yustahabu an yalil imam ahlul ilmi wal fadl la nga xam ne moom la ñu sopp ñu war a sës ca imam mooy ña am xam-xam ca am ngëneel li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li yelyéeni minkum ulul ahlaam wannuha na sës ci man ña nga xam ni ñoo am xam-xam ba ak xel yu rafet ya mi ngi noonu su ko defee loolu mooy la nga xamee ni ni moom la ñu war a def mooy imaam ña nga xam ne ñooy ñëw di ko siq mooy borom xam-xam ya nga xamee ne nii bu imaam amee ngàntu wuutal leen borom xam-xam ya xam téereb yàlla bi ba imaam juumee ñu gàggante ko ñooñu ñooy yeyoo taxaw ci gannaaw imaam loolu nag da ngay gis ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci jàkka yi boromi dara ji ñoo koy féetewoo du lu ñu tànn tànn borom xam-xam yi ñuy féetewoo place yooyu loolu di mbir boo xam ni nañ ci bàyyi xel bu baax su ko defee ngëneel bi nga xamee ni nii ci jàkka mooy taxawal premier sappe mooy ngëneel ba gën a mag rawatina nga ca côté ndeyjoor ya loolu it ci ngëneel la comme niñ koy jànge amma bu dee ne ña nga xam ne dañoo war a siq imaam mooy ñi nga xam ne ku nekk ci ñoom war naa mat la nga xam ne nii moom mooy imaam ci xam-xamam ci njàngam ak it ci mën a ak ràññeem amma mu nekk amma yustahabul lil imam sopp nañ ci imam ida sallima an yanxarifa an musallahu yaminan wa yastaqbil annaasa bi wajhihi sopp nañu imaam su sëlmalee mu wëlbatiku ci côté ndeyjooram jàkkaarloog mbooloo ma ci kanamam li fi'li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zalik yonent bi loolu la daan def rawa hadha abu dawud wa tirmidhi wa xasana an qabisata ibn halab an abihi qaal kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ya'ummuna فينصرف عن جانبيه جميعا على يمين وعلى شمال يرنتي بي دانيو دان جيتي دانا ولبتكو لك لك مو ولبتكو كوتي ليجور لك لك مو ولبتكو كوتي شامون ca loolu jubluwaay bi ci gën a am solo rek mooy mbooloo mi ku ñëw xam ne julli gi jeex na ndax ñooñu nga xam ne dañoo toppoon ci gannaaw imaam sopp nañu ci ñoom bu ñu sëlmalee ku nekk toog fi nga toog def askar yi nga xam ne dafa sësalug julli gi kon kiy dugg si bu imam defoon noonu moom bu ñëwee day kabbar jàpp ne dañuy taaye wala dañuy nangam moo tax imam ñu bëgg boo sëlmalee yow nga wëlbatiku jàkkaarloog mbooloo mi bañ a xam loolu amma bu dee fukkeelu bind bi ak juróom benn mooy taswiyatu sufuuf ñu yemele sàppe yi nekk ci gannaaw imaam yusannu lil imaam wal ma'mumin taswiyatu sufuuf wa taqwimiha hatta tastaqima sopp nañ imaam ak waa jàkka ja mooy ñu topp ci gannaawam yépp ñu xool ba yemele sàppe yi jubbanti ko ba mu doon sàppe yi jub is kaana rasuluallahu alayhi wa sallam yaqbilu ala nnaas yonent bi bu daan jiite day jàkkaarloog nit ñi wa yaqulu taraasu wa'tadilu mu naan susante leen ca ngeen doon ñoo xam ne da ngeen di digg doomu mi ngi noonu yemoo wa yaqulu sawwu sufuufakum daana wax yemale leen seen sàppe yi fa inna taswiyata sufuuf min tamaami salaa fexe ba sàpp yépp yemoo loolu daa bokk ci liy mottali julli gi wa qaala la tusawwunna sufuufakum da ngeen yemele seen sàppe yi aw la yuxaalifanna allahu bayna wujuhikum wala yàlla dana doon kuy sa safonte safaanante la nga xam ne mooy seen kanam yi ca ñàkk defar sàppe ci julli day jur noonoo ci waa jàkka looloo tax ba ku nekk boo dajeeg sa morom nga xool fële mu xool fële wal iyaasu billah loole sàppe si bu jubul seytaane da cee profito di dugg ci biir sàppe yi di dugg ci biir xol yi loolu it moo tax mu nekk lu yéeme lool normalement fu problème amee ci koñ waa jàkka ja ñoo war a ñëw régler ko amma nag problème am ca jàkka ja waa jàkka ja loolee moom musiba la yàlla na yàlla musal ñu ci donte ne bari na lool ci ay jàkka ba yegg ci ay jàkka yu ñu tëj sax lan moo ko waral ci loo xamee ni nii ci seytaan rek la jógee mi ngi noonu wa qaala yonent bi alayhi salaam daana wax ba tey na ma min xatwatin azamu ajran min xatwatin mashaha rajulun ila furjatin fi safi fa saddaha amul benn jéego bu gën a màgg fay ca yàlla ci ki gis sàppe bi nekk ci kanam benn place boo xam ne nit xaj na fa mu daal di ñëw dugg fa ngir fatt place boobee loolee mbokk ci tuyaaba ji gën a rëy la bokk allahuma nag am na ñuy def contraire ba am na ñoo xam ne jàpp nañ ne daa iman premier sàppe rek la ñu war a julli mi ngi noonu premier sàppe rek la ñu war a julli donc même buñ ñëwoon fekk sàppe bi fees buñ ne yunn xool foo xam ne ab loxo fa xaj sax daan ñëw ñoom roofu dugg ci biir loole mbokk nit ñi bañ a sàppe bu yaraax noonu lañuy bañ a sàppe bu ne fatt ba doomu aadama yi lañu sàkk woon ci ñoom te mooy seeni mbagg tegante seeni tànk tegante contraire ba mooy mbagg yi day roofaloo loolee mbokk islam gërëmul lu mel noonu doomu aadama bi di ko def lii mbokk kon moo aju woon ci wàllu imam gi su doonte ne mbokk yi am nañ lu ñuy laaj ci loolu bala ñoo dugg ci la nga xam ne waa ja nga xam ne dafa ñëw dab imam incha allah bu dee am na luñ ci laaj su amul ñu doog a continuer ci beneen bunt bi naam naam naam waaw la nga xamee ni nii moom mooy sàppe yi la ca gën mooy li ñuy tuddee cheville yi moom mooy tolloo mbagg yi doon yu tolloo du ne cati baaraam yépp ñoo war a tolloo ndax xam nañ ni nit ñi kii am na tànk bu tuuti am tànk keneen am tànk bu gudd yeneen bi da doon wax naan sësale leen seen mbagg yi su ko defee daal ñu fexe ba sàpp bi ku nekk sa mbagg nga teg ko ci mbaggu morom bi sa tànkit la nga xam ne mooy sa cheville sa costène bi tege ci sa costène morom loolu mooy tax sàppe bi doon lu jub wallahu subhanahu wa taala alam naam naam noonu ko sarata waaw waaw waaw waaw seen yeneen rakk yi ñu julli ak imam waaw yooyu baax na moo tax amul woon jàpp lu tax mu wuutal mooy pour kooku yeggee la julli gi même bu imam amul jàpp mbooloo mi moom seen yoon nekkul ci imam lu ko dal am naa jàpp ak amul jàpp seen du seen problème seen problème mooy ñëwoon nañ pour rey imam dem nañ ba mu di imam am na ngant xëcc keneen kooku day ñëw rek yeggale julli gi imam moom dem jàppi ñoom lañ joti julli ak imam ñoom seen julli googa moom baax na même bu doon imam dafa julli ba pare doog a fàttali ko ne yoruma jàpp ñoom seen julli baax na imam bu dafa nekk naan leen yoruma woon jàpp déedéet même bu doon julli na ba julli ga jeex mbooloo mu seen julli baax na naam ndax kii wuutu dafa war a taxaw fi imam taxaw ah normalement dafa war a taxaw fi imam taxaw parce que imam dafa war a taxaw ci digganteem ak mbooloo mi bañ a doon lu sori su ko defee ka nga xamee ne nii moom lay wuutu bu ñëwee day taxaw ci place am bu dee daf ko xaw a arrière tuuti wala xaw ko avance tuuti it maadaama jiite na mbooloo mi rek loolu moom mooy jubluwaay firiwul ne dafa war a fixé ci place am waaye bu taxawee fa imam taxawoon it loolu da ngay gis ne mooy la nga xam ne léeg-léeg muy gën a jàppandi am na ñaareel bi mu ne waaw ndax imam ndax imam imam mën na mën na dem rek waaw la nga xamee ne nii moom mooy kóolute moom mooy responsable lu julli gi su demee ba yëg ne moom nuñ koy waxee julli gi mënatu koo continuer daa war a geestu xool ku mu yaakaar na ko yéggaleel julli gi xëcc ko kooku yéggaleel julli gi amma bu dee ne loo xam ne da ko bett lu mel ne ay waccoog ay yu demee noonu xëy na mën na bu génnee dem su boobaa it da ngay gis ni kenn ci nekkoon ca gannaawam ca xam ne imam bi kat am na ngaan su avancé jiite julli gi loole dara nekku ci waaye la nekkoon cosaan moom bu ngant amul imam moo war a xëcc kenn kooku jiite mbooloo mi wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam mu ne amul benn jéego boo xam ne moo gën a màgg pay ca yàlla jéego bu mel ni tey yaa ngi nekkoon deuxième sàppe nga xool premier sàppe kat am na place boo xam ne nit xañ na fa nga jéego dem ca premier sàppe taxaw ca place boobee loolu ci jéego yi yàlla gën a gën a gën a gërëm la bokk waaw moo nekk noonu naam naam ndax bu imaam demee keneen dafa war a ñëw jiite wala ku nekk mën naa julil boppam la chaque ne la nga xam ne mooy la gën mooy bu imaam demee ñu wuutal ku jiite mbooloo mi bu doon te ne ne ñoom dañoo xamut loolu wala kenn nanguwul jël responsabilité boobu ñu yeggale seen julli ga it du tee julli ga moom baax na waaye nag la nga xam ne moo nekkoon la yey mooy am koo xam ne moo ñëw jiite mbooloo mi comme nañ ko sose woon mu nekk jullig mbooloo loolu mooy la gën ci ñoom ñuy yàq yoolu jullig mbooloo di ko delloo ci jullig kenn sa bopp mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ay waaw waaw ndax ndax dagan na ñuy julli ci gannaaw bu takk ay téere day loolee xanaa ma bokk na ci fitna yoo xam ne yàlla nattoon nañu ko ñu jaar ci yàlla nattoon nañu ko ñu jaar ci dañoo dem benn conférence Colobane am benn imam bu jóge woon Madina Cheikh Salih rahimahullah mu ñëw def conférence am ku ko laaj ne ko waa imam buy takk ay téere ndax wares naa julli ci moom mu ne laa la la loolu kenn du ko def dégg nga moom Arabie Saoudite la jógee seen kii bokkul alors ñun biñ ñëwee biñ ñëwee ba ba yàlla ngi dogal maa ngi dëkk yëmbal maa ngi ñu ma àndaloon ci conférence bi ñu toog waxtaan wa léegi nu ñuy def ñu ne dañuy bàyyi jàkk ji dañuy bàyyi jàkk ji keroog timis dañ koo jullee ci kër ga biñ jullee ba génn dajeeg waa jàkk ji ñëw faa yi nañu ah waaye di ngeen tardé fu ngeen nekkoon dafa mel na asamaan lañu wàcce sama kaw ma dem ma jóge fa ci guddi gi dem seeti kenn ci suñu mbagu diine yal na ko yàlla jéggal yërëm ko Cheikh Souleymane Gueye mi ngeen dégg may wax léeg-léeg bi ma demee waxtaan ci ak moom te moom bokkoon na ci ñi ko invité woon ba mu ñëw fii mu ne ñoom contexte yi nekk Arabie Saoudite duñ ko booleeg li nekk Sénégal Arabie Saoudite la fa nekk ci xam-xam ak la fa nekk ci tawxiid bépp imam bu génn ak say téere ak say kii kenn warul julli sa gannaaw mais ñun Sénégal yegge gu ñu foofu yaa ngi dégg mu ne ma fekk imam boobu dana wax loolu mu ne ma gis nga fan yi mi ngi dem julli jumaa tel li gis nga ko mu ne waaw mu ne moo la gën a xam ne imam bi day sakk téere yaa ngi dégg waaye loolu moom xëy na la tax mu koy def mooy ak maslahaal ci wàllu diplomatie waaye ñu nit daal yegguñu foofu dañoo doon ñu néew di woote ci diine soo taxawee Sénégal nga ne doo julli ci benn gannaaw imam buy takk téere xamal ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent de jàkka na nga ko bàyyi te rawatina jamono boobu ñuy wax mën naa la wax ne daa nekk xolobaan moo fi nekkoon jàkk sunna presque bu ñu mën a wax loole xam nga mënta nekk su ko defee daal ci gàttal imam bi daal buy takk téeréem buy def lu muy def maadaama dana ñëw ci jàkka ji kabbar takbiratul ihram ñu gis ko mu julli julli gu normal ba asalaamaaleykum yow jullil ci gannaawam loolu la ñuy sant bépp ndaw mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw ki nga xam ni moom dafa woote ne moom dafa gëm beneen yonent loole dafa dugg ci wàllu pas-pas dafa dugg ci wàllu pas-pas yoo xamee ne nii la nga xamee ne nii day man mooy sama position ñu mel noonu kenn warul julli seen gannaaw képp koo xamee ne nii wóor na la ni jàng na imaam la woote gëm di woote ne diw yonent bu yàlla la ku mel noonu da ngay gis ne loolee mu def dafa doon mbir mu grave boo xamee ne nii la gën a néew mooy ku mel noonu kenn warul julli ci gannaawam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam naam waaw waaw waaw waaw ndax ki nga xam ne imaam day jiite di jàng benn saar dem ba yàgg mu taxaw daal di arrêté am ko mu wóotal ndax yow saar boobu nga war a jàng déedéet du saar boobu nga war a jàng su dee mën nga saar ba mu doon jàng nag nga yeggale ko loolu mooy la gën loolu mooy la gën waaye nag du ne saar bi imam doon jàng rek nga war a jàng déedéet la nga xam ne daal munta ñàkk mooy fatiha ba moom fatiha ba moom fokk fa imam yemoon ngay ngay continuer amma bu dee beneen saar su boobaa mën ngaa bàyyi saar boobu jël beneen saar bu dee mokkal nga saaru imam ba nag loolee la gën mooy nga yeggale fa imam yemoon wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam naam waaleykum salaam ndax julli ci imam boo xam ne dafa am comme noonu noonu ca jàkka ji wér na bokk na ci li borom xam-xam yi di wax dagan nañu julli ci gannaaw faasiq bu mu mën a doon dagan nañu jullee faasiq bu mu mën a doon faasiq mooy kan mooy ki ñu gis ne def na bakkaar bu mag njaaloo nan sangara noonu péemi yooyu yépp ay bakkaar yu mag la bu doon dañuy tànn imam kenn du ko tànn imam waaye bu dee moo nekk imam dagan nañu julli ci gannaawam bokk la question ba mbokk bi doon laaj nga xam ne daa jëm ci pas-pas kii woote ak yeneen loolu kenn du ko tuddee faasiq kooku dafa dugg ci cadre iman dafay dugg ci wàllu kufru ak iman amma bu dee imam bi bakkaar lañ ko xamee comme ni ma la ko waxee rek ba ñu koy tànn moom duñ ko tànn waaye nag moo fi sës bakkaar boobu mu def teewul ñu jëlee ko bis boo xam ne ab jullit faatu na bi mu faatoo lu ñu xam ci moom mooy alfusuq doon na nan sangara doon na njaaloo doon na carte doon na lu mu mën a doon du tee ñu jullee ko la ñu cay wax rek mooy ngir jàjj ña ca des képp koo xam ne kilifa la ci dëkk ba bu mu bokk ci jullee ko bu ko imam ba jullee notable jàkkee buñ ca bokk ngir mu nekk jàjj ci ñeneen xam ne bu ma dee kat ñii duñ bokk ci jullee gi doonte ne ñooñu fa ñekk seen kër war nañ koo ñaanal yàlla waaye nag waruñoo feeñal jullee gi ñu koy jullee loolee kon il faut ñu bàyyi xel entre pas-pas ak bakkaar suñu borom yàlla nee na lépp mën na koo baal ab jaamam suuf ku koy bokkaale mi ngi noonu wala loo xam ne kufr la mooy ki weddi aayab yàlla wala mu saxalal yàlla lu yàlla saxalul loolu moom bokkul ak la nga xam ne mooy alfusuq mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam naam aw aw raw waaw waaw raw fa mooy bori ngay julli bu mujj deret commencé génn sa bakkan moo tax ba même mag ñi jàngale fiq ci suñ téere yi comme bor yi dafa mën a dab doomu aadama dañ naan imam pour sax suturaal boppam même bu dee am na leneen lu toj parce que imam mi ngi julli bu ju ngelaw génn ci moom dañ naan na taf bakkanam rek daal di xëcc ki nekk ci gannaaw ba tafee bakkanam rek génn ñu naa jàpp ne day bori bu ko defee mu dem loolu ëpp sutura ñuy jàpp ne ngelaw génn ci moom waaye loolu sutura ak sunu maam yi rek la wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw mu ne dafa dafa ah dafa uutu imam waaw ab waaw waaw bu fàttee fi imam yem mu reprendre ko rek loolu mooy problème bi ban ban ban aaya la imam la imam yem xamul fu fu imam yem mu reprendre mu reprendre fatiha bi rek wala mu xool lam jàpp ne moom imam jàng na ko parce que sikk sàkk la mën a am bu xa jàppee ne imam jàng ne alhamdulilah rabbil alamin rahman rahim ma ngi sikk sàkk ci jàng ne ndax malik yow mi diin ak loolu mu jàng la ko leer ci ne imam jàng na ko la ko des mu continuer ko loolee da ngay gis ne insha allah la ci des du ko lor wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah naam imam bi nga xam ne dafay jiite mbooloo mi def njuumte ci julli gi am keneen koo xam ne da ko remplacer ku mel noone dañuy gis ni su imam sëlmale la imam waroon a def rek lay def imam daa waroon na sujud baada salaam day sujud baada salaam imam daa waroon na sujud qabla salaam day sujud qabla salaam ndax dafa wuutu imam pour taxawee la imam waroon a taxawee kon lépp lu imam waroon taxawee rek da koy taxawee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaleykum salaam waaw ah waaw sëñ bi kay ba nga wala ku li xaal daal ci gàttal ci nga xamee ne nii da koo da koo leer ne janaaba génn na ci moom faka janaaba bi dalee ca sanguwul woon day dem sangu ji ba mu waat julli yam julli yépp dafa am différence entre ki nga xam ni la da da la ka yàq julleem dafa jóge ci ci moom ak koo xam ne la yàq julleem daa jële jóge ci yére ba mu sol ki nga xam ne yére bi daa am sobe mu fàtte ko xëy suba sol yére bi julli ci fajar ak tisbaar ak takkusaan dem ba ci eh sama yére bi daa amoon sobe julli na ci ba pare julli yooyu dañuy wax baax na amma ki waroon a sangu farata fàtte ko ki waroon a jàpp fàtte ko ku mel noonu mboolem julli yim julli julli yooyu yépp da koy baamuwaat mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala waaw moom laa la wax gëmoo ko woon fi nga amee yaqiin fa nga dem ba am yaqiin ne janaaba génn na ci man dañ naan la xoolal fan nga jàpp ne fa la fa la la dale fa nga jàpp fa la la dale mooy nelaw yi nga mujj nelaw kon demal jël julli yi nga julli ci demal sangu ji farata julli yi ci diggante bi yépp nga baamu ko wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah naam kay naam naam da ngay da ngay déglu ndax ci nekk nii ci kanam day déglu jottali ma li muy wax waaw mu ne waaw tànk yi waaw tànk yi ñu sosoloo waaw waaw ñu pousse seen tànk ah ñu ñu pousse seen tànk waaw waa ala kulli xaal nee na da ngay comme tànk yi ni mu war a sosoloo day gis koo xam ne boo jëlee sa tànk teg ci tànkam day pousse tànkam ala kulli xaal mbokk loolu warul tànk yi dañoo war a sosoloo laalante mbëgg yi sosoloo laalante julit du seexlu mbokk julitam julit du daw mbokk julitam yeneen ci bi alei salatu wasalaam masalul muminina fi tawaddihim wa tarahim ka masalil jasad dafa mel ne benn benn yaram lañu loolu tax ba lay sa mbokk jul da nga koy jox loxo mu jox la loxo te loxo mooy gën a sensible tànk yaa ngi dégg su ko defee kon sa mbokk julit jël tànkam teg sa tànk loolee dara néewu ci xam naa nag lu nekk rek aussi day am ak jéggi dayoo am na ci ñoo xam ne la ñuy jëlee seen tànk sus la ko loolee mën na nekk lu la lor waaye waxuñu dës tànk dañoo wax teg tànk kon fi nga koy teg nga koy teg mu teg ko fi mu koy teg ñaari deri di laalante mu bajaroon loo xam ne nii ak lor la cay am waaw ala kulli xaal loolu feebar moom c'est des cas exceptionnels waaye bu dul looloo moom ñoo xam ne daal wareef bi mooy ku nekk daal teg sa tànk ci sa wetu tànk moroom ba tànk yi laalante fekk kenn du lor sa moroom kenn du daw sa moroom loolu daal mooy la nga xam ne moo gën a nekk teggin ci wàllu julli ndax loolu dafay jur cofeel dafay am cofeel buy yàlla di jaarale foofu ci julit ñi di tegan si seen tànk ndax tey chinois bi xeeb nit ku ñuul tubaab bi xeeb arab ngeen daje ci jàkka ji ku nekk jël sa tànk teg sa tànk morom sa mbagg teg sa loogu borom day wane ne benn ngeen yéen a uute ci couleur uute ci race uute ci nangam waaye li leen boole moo gën a màgg ca mooy yàlla moo leen boole mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah mbokk bi waaw loolu julli juróom la woon ci ci julli julli normal julli juróom la woon ah waa na ko li xaal day wax ne fi nga xam ne ay naar yu weex la ñu mu ñëw ci jàkka ji fekk kiy jiite naar bu ñuul la mu ne ñi ay jaam lañu du julli ci gannaaw jaam loolu moom nekkul loo xam ne nii lu dul ay aada la ay aada rek ñooy wane loolu lenn ci yenn fuqaha yi ñoom dañuy jàpp ne ki ñu wax jaam warul jiite jumaa ci ndax ñoom dañ naan jumaa waru ko kon warul jiite jumaa ci waaye mbokk même ñoom ñooy wax ni jumaa warul jigéen warul musaafir warul ka nga xamee ne mooy jaam warul nangam mais ñoom buñ ko jiitee day day na dana baax kon la chaque ne jiite ga ñuy jiite loolee ci sharia sharia dàq ko la ka dàq mooy seen aaday bopp loolu jumaa jaa tax muy wax amma bu dee waxtu julli juróom loolee amul benn borom xam-xam bu wax ci wax ci wàllu xam-xam buy wax naan jaam du jiite ay julli juróom loolee da ngay gis ne boo delloo ci doxalinu lislaam amul fenn fenn foo xam ne fu ñuy jàngale ci fiq ba yegg ci imam ñu ne nag kuy jaam du jiite te gis ngeen charte imam yaa ngi nii jàng nañ ko ba yegsi ci fukki charte ak juróom benn gisu leen fi fenn fuñ ne jaam du jiite da jàng nañ jigéen du jiite day da jàng nañ xale bu majeurul du jiite farata naam fu ngeen jàng jaam du jiite kon loolu ay aada la yoo xam ne dafa dox ci biir nit ñi waaye islam xamul loolu wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa mbokk kon foog naa ne question yi xaw na jël temps bi jàpp naa manes na bu ñu noddee rek incha allah après benn masala masalan ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw ci mbooloo fekk imam raw na leen ñu julli ak imam ba pare imam sëlmal ñooñu bu ñuy mottali ndax dañuy am kenn ku ñu jiital mu mottali leen wala ku nekk dafay julli sa jullik bopp la nga xamee ne nii moom moo gën foofu mooy ku nekk julli sa jullik bopp maadaama imam matal na mi ngi mel ne rek tey jii imam bu doon tene ne dafa nekk musaafir ñëw jiite mbooloo mi moom ñaari rakk lay julli bu mu sëlmalee mbooloo mi waruñoo fal beneen imam boo xam ne moo leen di mottali fi imam sëlmale rek ñoom ku nekk day jóg daal di mottali la nga xamee ne nii moom mooy sag julli loolee da ngay gis ne ay masala yëpp yoo xam ne ni mën a feeñ la ci wàllu wàllu imam mi ngi noonu allahuma lu dul xëy na mbokk yi am beneen question buñ ci buñ ciy dabantal su doon te ni naam bismillah waaw waaw ah waaw ah wa d'accord d'accord d'accord waaw waaw waaw baax na baax na incha allah dañ ci gën a bàyyi xel day wax ne léeg-léeg dañuy jël benn ligne jàng ko ci arab doog ko firi mu ne nag ñuy taxaw ci baat bu nekk di ko di ko firi naam loolu dana gën a dimbali nit ki di di ko gën a xam incha allah daan ci daan ci gën a bàyyi xel naam mbokk mi ngi noonu naam naam dañoo jàng du du féete seen bopp kaw waaw koo xam ne tongo mooy bu ngeen dajee ku nekk du mooyu kenn di nuyu sa moroom ki jëkk wax mbokk salaamaaleykum salaamaaleykum kookum génn na ca tongo ba loolu moom mooy mbir bi su ko defee soo ko rombee nga nuyu ko bu la fayul loolee moom problème am la waaye yow moom génn nga ca loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw ki nga xam ne dafa taxaw ak kenn di julli gannaaw ba am ko leen dab si su dee place yaatu na ci kanam day avancer daa di ka nga xamee ne ni moom mooy ka dab si sësëg kam taxawaloon su dee ne fa ñu nekk place amu fa ca place am na ca gannaaw ma'mum ba mooy arrière su ko defee ñu daal di taxaw benn jéego ba nga xam ne dañ koy jéego imam def ko jëm kanam wala ma'mum def ko jëm gannaaw fekk la ko waral mooy defar julli gi loole da ngay gis ne dara nekku ci la gën a jàppañ daal la ñuy def imam imam bi jiitu wala ma'mum bi arrière mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam naam ah nga tukki waaw waaw waaw la ci jumhurul ulama wax daal mooy war a passé ñeen ñeenti fan muy ñaar fukki julli loolu la ca borom xam-xam yi wax war a passé ñeenti fan muy ñaar fukki julli yegg nga fa nekk nga ci dëkk ba nga yegg yegg nga fa tisbaar ñu ne waaw del julli di julli di julli ba yëg nga ne mat na ñaar fukki ñaar fukki julli su boobaa da ngay matal loolee mooy la nga xamee ne moom la jumhurul ulama wax donte ne am na borom xam-xam yu ci wax yeneen wax bu dee leer na la nag bi nga ñëwee ci dëkk bi wóor na la ne da nga fee def lépp ñeenti fan keroog ba nga yegg see ngay commencé matal keroog ba nga yegg see ngay commencé matal amma bu dee jàppoo ne doo fi def temps boobu ngay dem di wàññi di wàññi di wàññi ba ñeenti fan yi mat su boobaa dañ naan da ngay matal loolu mooy waxi jumhurul ulama am na nag yeneen borom xam-xam yoo xam ne ni ñoom dañ ne tukki ba lu mu yàgg yàgg yàgg da ngay wàññi sa julli wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam wa taala waaw waaw ndax ñëw nañ ci jàkk ji imam julli na ba pare ñun ñu dugg si ndax mën nañoo julli mbooloo am dañuy julli kenn par kenn loolu moom da ngay gis ne borom xam-xam yi dañ ci amee xilaaf bu dee ne lu bari ci mazhab malik ñoom dañ naan jàkka ja bu ñu xisee ba julli mbooloo wuruñoo sos beneen mbooloo ñoom loolu la ñuy wax waaye boo delloo ci yeneen tegtal ya nga xam ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam julli na ba pare am benn waay bu ñëw di julli mu ne ndax kii doom ko ko jàppale ci julli gi ñu julli mbooloo ci kanamam loolu it la ñuy jàpp ne bu fitna amul te jàkka ja bu fitna amul te jàkka ja dara nekkul ci ñoo xam ne dañoo tardé contre ñu imam bëgg ñoo sos ak tange ak tendance waaye dañoo ñëw rek fekk imam sëlmal dara nekkul ñoom ñu beru ber la nga xamee ne nii moom mooy seen julli amma nag boo demoon ci dëkk boo xam ne boo ko fa defee mu mën a jur fitna la gën nga bañ koo def am na yàlla sàmmal ñu suñu mag imam Boubacar Sall ma suñu ànd ci tukki bu xaw a sori ba ñu demee ci benn dëkk ñu ñëw ci mis fekk sëlmal nañ ba pare mu ne gars yi na ko ne ber julleem rek ndax xam na waa dëkk bi la nga xam ne mooy seen kii loolu day jur fitna ala kulli xaal bu dee du jur fitna dara neewul ci ñu beru julli seen julli mbooloo ndax am na ay tegtal ci loolu wallahu subhanahu wa taala aalam amma nag bu dee lu ñu tey moom ñaari mbooloo wurul am ci jàkka yàlla nattoo na ma ci dëkk boo xamee ne nii bu ma xam bu baax dañuy jàkka ji bu ñu daan julli mbooloo mi day imam bi day jiitu fii bu liqaam ba pare beneen imam liqaam fee ca wetam ñii teg seen i yëpp ñii teg seen i jeesi noonu la doon jullee ba ba gendarmerie ñëw ci jàkka ja xam ngeen julli googu moom sëñ bi kenn du xam julli lu mu mën a doon te yàlla nañ yàlla musal ci cheytan ñaari imam yi ñoo bokk benn baay ñaari imam ñoo bokk benn baay mi nga noonu am na mbokk bi doon yëkkati ñu mujj ci moom rek ngeen baal ma bismillah waaw ala kulli xaal mbokk sujaade yi la ci nekk ci ay dessin dañu sip nit ki rek nekk yi di ca julli amma bu dee ne da nga kabbar ba nekk si biir julli doo koo gis julli googee da nga koy yeggale loolu yàqul sa julli loolu moom yàqul sa julli amma bu dee yonente bi alei salatu wasalaam julli na ci benn mbubb bu ko abi jaham joxoon mu amoon ay dessin bi mu paree mu summi ko ne dem leen ne abi jaham mbubb bi mu jël ko ca jox ma beneen mbubbam xamisatal ndax lii daf may ittal sama julli kon maadaama dugg nga ci julli gi ba pare loolu man nga ko yeggali amma bu dee damaa dem jàkk ba xam la ñuy def distance mu julli fa ba pare gis jàkk bu ñuy sësale seeni tànk bokk jàkk yooyu di def distance la tax ñu koy def dañ koy def ci ijtihaad seen ijtihaad moo leen may loolu te it mbir la boo xam ne siiwoon na ci àdduna bi yépp Makka ak Madina foo dem ñëpp distance lañ doon def kon ñoom seen ijtihaad boobu la leen yàlla def ba ñuy def seen loolu mënuñoo wax lu dul ni julli googu ñu julli baax na kon maadaama julli nga ak mbooloo moomu ci ijtihaad boobu jarul nga dem di julli feneen loolu mbokk mi ngi noonu ñu ngi ñaan yàlla mi delloo feebar bi gannaaw yàlla na ko fi yàlla jëlee tey maa ngi déglu ñu ne Sénégal 1700 tests benn cas lañ ci am zéro mort wax dëgg yàlla loolu lu dal xel la waaye yàlla na ko yàlla jëlee ci àdduna bi yépp yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla yërëm musal ñu ci musal ci sunu njaboot ak jullit ñi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain